ana idi fɛn tuma yina ko an bɛ den kun ɛ ko n b'a yidi Thank you. gis nga jamono ji nag gis nañu gendarmerie nationale egsi na waaye booba tey rek ni ñu ko waxee li nga xam ni moom lañu seetlu mooy sapeur pompier ñu ngi leen di xaar waaye booba tey kenn gisatu leen gis nañ nag ñenn nañ ci population bi ñu ci bëree bëri ñu ngi koy ñaawlu bu baax ndax lu mat trois heures de temps ñuy woo sapeur booba tey mënuñu koo gis bokk na ci askan bi li ñuy ñaawlu. laa ñam de ma ko yi ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko